site bii di Refane TV seen mbokk donc bu xew bu ñu koy wax Saliou jot moo leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal bu baax a baax Sëriñ Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér ba li mu yéene liggéeyal maamam mu defe ko na mu ko bëgg tonu nu ko ànd kooku moom noonu it lañu koy ñaanal Sëriñ Seex Jëmb Faal waaye di ko ñaanal mbooleem kilifaay diine yépp comme ni ñu koy defee ak yéen bés bu nekk rek di leen àndil naafile gi nga xam ne moo ñëw ci tereb sëñ Sohaybu bi tey jii di juróom-ñaari fan ci weeru koor ngoon ñu wala naafila naafilaag guddeeg juróom-ñetteel gi guddeeg juróom-ñetteel gi nag boo demee ci tereb sañ Sohaybu bi nee na ñu ngi ciy naafila ñaari rakka rakka bu ci ne nga jàng ci faatiha benn yoon ak xul huwallaahu ahad fukki yoon ak ñaar mel na ni loolu moom yomb na lool ñaari rakka rakka bu ci nekk nga jëng ci fatiha benn yoon qul wallahu ahad fukki yoon ak ñaar waaye ak li muy yomb yomb boo ko defee di ci am tiyaabu ju bari ndax suñ soxay bu ne na ku ko def xaraf ku ci nekk des na ko bindal tiyaabooy jaamu yàlla ak junniy at te dina mel ni ku la xeetu yenentu bi wépp maanaam mboolem julit ñi ñépp mu jox leen ñu lekk ba suur sallallahu alayhi wa sallam waaw to waxut mu le mu lexal leen benn bés rek de waaye mel na ni ku leen lexal juróom ñaar fukki at yu met sekk boole ca jox leen ñu naan ba man di diirub juróom ñaar fukki at boole ca di leen jox ay yeere yu ñuy sol diirub juróom ñaar fukki at mel na ni tam ku goreel junniy jaam maanaam ca ba jaam di am mel na ni ku goreel junniy jaam te bu ñaanee yàlla mu nangu ko te bu dëkkee dana dëkkiwaale ak leer te buy jéggi siraat day gaaw bu mel ni ak melex te des na ko ramuloo juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne sawara lañu waroon a dem kon loolu am na solo lool ci naafila rekk ñaari ràkka waaye loolu li ñu ciy jànge rekk mooy suñu borom barile gu mu barile koor itam foor gu mu foor ci suñu boroom ak kawel ko suñu borom kawel ak fonk ko suñu boroom fonk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax na ci benn addis boo xam ne addis boobu waxe suñu boroom la ciy nettali suñu boroom wax ne doomu aadama bi lu mu jëf boppam la ko jëfal ba mu des koor koor moom yàlla nee na maa ko moom maa koy feyal sama bopp kullu amali ibni aadama la ila siyaam fa innahu lii wa ana aj bi noonu la ko addis ba waxe loolu moo tax weeru koor lu ci waay def rek day màgg day bari ndax liñ ciy wax ci ay geneel boo ko xalaatee ci xel rek dangay jàpp ne xej na lu bare noonu war da mën a am waaye ni ma koy faral di waxe ñu xam ne àdduna ak alaaxira dañoo bokkut lenn àddina ak lenni alaaxira bokkuñu loolu moo tax lu réeréy fii ci àdduna bu demee alaaxira lu tuut la fay doon alaaxira nag lenn mu daa xejut ci àdduna kon li am solo rek mooy ñu gën a dëgëral suñu pos-pos gën a góor góorlu te xam ne weeru koor wii lu ci waay bëgg ci lu baax rek mën na ko cee am lu ci waay bëgg ci jege boromam mën na ko cee am bu góor góorloo te am pësteef rek fu mu yem moo fa yemale boppam bu ko defee lu mel ni farataay koor ak i sunaam itam ñu koy fàttali toujours koor ñaari farata rek la am farata bu njëkk bi mooy yéene yéene nag jamono ba ngay um koor ca ko waroon def ca bés bu njëkk ba nga xam ne mën ngaa yéene jën yéene ngir weer wi yépp waaye bu la neex itam guddi gu nekk nga yéene waaye boo yéene nag na nga yéene balaa fajara jot waaye mën ngaa def jën yéene mu doy ci weer wi yépp fekk daggoo koor gi soo daggee koor gi nag mel ni nga am ngant bu dag benn fan wala ñaari fan booy tamliwaat da nga yéenewaat ñaareelu farata bi nag mooy lépp lu ñu ne day dagg rek nga bañ koo def moo xam lekk la wala naan wala jaxasoog soxna wala yu mel noonu kon xam naa ngir benn gudda bañ a guddal mën nañu taxawlu foofu xanaa fàttaliwaat leen naafila gi naafila gi ñaar raka rek lay doon raka bu ci ne nga jàng ci fatiha benn yoon ak xul huwallaahu ahad fukki yoon ak ñaar macha allah am na solo lool wasalaamualeykum wa rahmatullahi ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog xamal besam ak darajaam soog xamal besam bur yàlla ne bind na malaayika ma aras day woor bëccëgu woor guddi ga